di jàngal ndaw ñi léegi ban façon théâtre ngay jàngal ndaw ñi yow. waaw mooy théâtre général. loolu laay wax parce que. Hmm. lii li ñu pare pour def ko mooy ñu pare pour nekk ay comédien di nekk comédien waaw parce que boo ko si nekk comédien mhm. mun na def théâtre yëpp waaw mooy après théâtre bi li muy doon mhm. kooku mettre en scène bi mhm. ak nga xam ne moo bind théâtre bi mun naa am théâtre la mun na nekk comme théâtre bi ñuy wax théâtre parlant ñenn ñi naan ay théâtre yu mais moom lañ ko mën a tuddee quoi xam nga moom théâtre parlant wala mu nekk théâtre boo xam théâtre populaire la waaw wala mu nekk théâtre am yu am ay espace jeune kon théâtral lu mu ci mënti doon loolu théâtre maanaam ki nga xam ne mobile pièce mooy xool ban façon théâtre a def mais ñun dañuy fexe ni ki am xam te ni mënul ñàkk mhm. muy première fois muy écouter mhm. muy yaram mhm. fa mu defe ko muy na a def liggéey yaram yi ak baatam baatam

ci kaw ni nga ko ko laajee waaw mun mun na def ay nuancement moom ci kaw dialogam ak muy dégg bu baax a baax tamit li muy wax wax ndax wax dafa am yu mm-hmm. bu njëkk mm-hmm. xam lan mooy ay mots valeur ci mun ko comprendre aussi wax bi ngay wax tamit mu mun a nekk soobu neex boo xam ne day neexal dugg ci nopp doon lenn xolam ci nekk dañoo gis ni léegi ba balaa def ne mooy ja jàngal nit ñi bi dañuy dañuy dañuy ah, def sport ba pare. waaw waaw sport la. Mm-hmm. mais xam nga dafa am yoo xam ni mënu ñàkk mooy li ñu doon liggéey sa mm-hmm. boo ñëwee kon il faut nga échauffé bu tuuti mm-hmm. après nga def physique. parce que dafa laaj énergie. énergie yow muy def théâtre dafa laaj nga am énergie. parce que seen dafa metti soo amul énergie mm-hmm. soo yëkkati kaw seen da ngay gaaw a sonn suñ paree nag ñu étiré ba suñu yaram ñu mën a delluwaat tëddaat ci nelaw te metti mm-hmm. loolu la rek moo tax ñu def loolu ñu def loolu gis ngeen ko moom loolu la wax tarkal la dañoo léegi gis ni théâtre bu njëkk ba ak léegi théâtre léegi mën naa ni ji ni lu muy yàq moo ëpp li nga xamante ni si ni euh, moom lay defar ndax léegi comme ni ñu waxoon sànq suñu demee bay théâtre ngay saaga suñu demee ba ñu théâtre suñu mag ñu baax ni ñu leen di wax ay kàddu yoo xamante si ni moom mooy loolu en tant que yow mii nga xamante ne si ni yaay jàngal ab maître nga euh, si terrain bi. non nga ndax képp kuy jàngale rek maître nga si théâtre waaw <laughs> waaw en noonu lan nga siy mën a kii daal. waaw mooy mooy li ma la wax ni baromètre boobu man déglu bu baax a baax ndax sama kilifa xëy na buñ la gisee buñ déggee baax boobu noonu sax xëy na danañ ma sànni xel mais waxuma ko de waajee ko wax waaw loolu la mais xam nga tey mhm. moo tax théâtre Bathio bi ginnaaw koy yaatu mhm. tey jii damay wax sax lépp théâtre lañ ci mën a tuddee mhm. téléfilm yi daf ci am ñoo xam te ni xamuñu dara amuñu bagage waaw parce que war nga mën a am bagage boo wax mu intéressé nit te doo saaga mais comme ni ko gars yi defee ci TikTok yi dina maam wax wax bu ëpp ku ñu bàyyi xel. Hmm. am na ñoo xam ne foofu rek lañ tàkk kal kal seen théâtre loolu nag ñàkk xam-xam la hmm. parce que fi nga waxee wax bu ñaaw hmm. ñëpp def ci attention bu ñu fa wax bu am njariñ bu amee noonu doole bu ñëpp def ci attention. waaw man de loolu laa loolu laa ko. loolu ngi noonu euh, suñ bëggoon a xam euh, léegi mbax ba da jitee euh, théâtre bu muy def. moom si lay liggéey wala dafa dafa am yeneen métier yoo xamante ni si nii moom la ko boolee. waaw ci commencement wax bi wax naa ne te benn kilifa toog nga ko def. Hmm. boole ko ak liggéey. bu dee métier nga ko def nag bàyyi lépp nga dem def ko. Hmm. man nag comme njaboot dafa nekk sama ginnaaw te théâtre bi xëy na fayagul daa yàlla fay na <laughs> koy yàlloo ci loolu demee de. Hmm. mais après mënuma xaar loolu. il faut may liggéey di yor sama bopp wala may jéem a def taal sama kër yooyu noonu. waaw ah, mais bis bu waaw. rek dëgg la ñu xool ñu ok ayca mi ngi noonu tàkkaar ñu ngi leen bu baax a baax a baax di jaajëfal ñi si nii ñoo ngi bàyyi xel en ce moment euh, bi ñu ngi leen kontaanee bu baax a baax a baax Teuf Connection TV Sénégal waaye rawatina yéen ñi nga xamante ni si nii ñu bàyyi xel si suñu seen YouTube bi Teuf Connection TV ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax baax a baax ba su mel ni waxtu ba boo xam ne gis ngeen ni naan biir ndaanaan comme ni ma koy waxee rek bala ngeen mën a découvrir ndaanaan la biir la damay bàyyi bara mu jox téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ngi lay siiw si compte TikTok euh, bu Teuf Connection euh, TV Sénégal bu ma bëgg rek nga bëggal téléspectateurs yi nga xamante ne si ne rek. ñu ngi téléspectateur mënuñu xam nga duñu ma théâtre lay bëggal te ñu perte rek la ñuy dund c'est-à-dire gis nga boo ko xam. faaw dem nag yow sonn nag dem ci saali pour bu taayal ñu dul taayal rek war nga ko mën a dund parce que ñëpp xam nañ ni dara mayu fa ah yow sax xam nga ko xam ni sëñ la lëf lay jaajëf bi mbaaw boo dugalee dugal dugal da cee xam da nga ko rafetal noonu la ñu nasee woon ci kusu doomu aadama nañ bàyyi dooleel seen idée bu ëpp parce que loolu moo waral ku ne di taal. bobo bëggee kenn ku ci nekk avancé bu di défendre sa idée mais day partager ak nit di waxtaan ak ñoom n'est-ce pas waaw noonu la demee waaw kay mi ngi noonu tarkalla comme léegi ndaanaan la moo ngi noonu ndaanaan li nga xamante si nii day tëdd ba guddi sax di nelaw sax su ma neexee ma loolu gis ngeen ni ma nga xamante si nii def na ko fi si personnage mandi bi nga xamante si nii moom rek la def li may waxatee ngi nii kat la waaw ni ko nangu la aja tarkalla dernière ah, question bi taataal la suñ bëggoon a xam ah, Bada Djité ku bëggoon seetaan ay ah, vidéo yi nga xamante ne si nii joué na ko fan la war a mën a dem pour seetaan ko. waaw man defe naa benn film série laa mus a def. Mm-hmm. boo xam ni xëy na sax bu am doole la quoi. maa mm-hmm. ngi ko ci 3 TV. 3 waaw mu tuddoon Parodie Sans. Mm-hmm. ci boobu sax. personnage Malick laa ci joué sax mais bokkul ak personnage bi ñu ma joué ak euh, Ndoumane xëy na ma ñëwee fii. ñu waroon defal Moussa le maire. xëy na ci parce que. Mm-hmm. moom sax moo noonu wax dëgg mm-hmm. na lu sooy waaye. Mm. am na benn télé bu ñu ciy waxtaanante suñu mate na ko mën nañu ko waaw. yàlla na ko motali. waaw à part lépp ci ay samay kii mooy session laa ko joué. mu ci yenn pièces yoo xam te ni naa ci. joué woon ci xëy na tamit ñu dugaloon ma ci. kon la boo xam ne def la joor. film cinéma la. Hmm. daaw la defoon bande annonce bi. joué hmm. nañ ci. Hmm. xëy na fan la ma doon woo di ma di ma envoyé message di ma. ba dafa dépendre ci yooyu nag quoi. mais maa ngi dépendre ci liggéey yi ñu ngi mm-hmm. nga xam te ni sunu liggéey boobu lañ ñooñu taxaw. ñu noonu tàkkaale dama koy bàyyi rek euh, mu u Teuf euh, nga tàggu téléspectateur si noonu nga ko war a mën a ñaax askan wi. waaw li may ñaax askan wi mooy ñu dellu ci xalaat. Mm-hmm. te bu ñuy xalaat ñuy xalaat ci wetu wet kiy féete ci jàmm. li ma ñaax askan wi mooy ñoom ñu yërëmante ñu bëggante mm-hmm. ñu dëgg suñu biir bañ ci naxante mm-hmm. waaw kenn ku ci nekk muy xoole boppam mm-hmm. bët bi muy xoole moroom waaw loolu lu am solo la quoi ñu yërëmante man nag salle bi ma nekk mu ngi tudd Miroir du Peuple mu ngi nekk ci stade Ngaye bi chaque mercredi 16h30 ba 19h ak samedi 16h30 ba 19 dañuy répété waaw ñu ngi programme tamit ak ñi nga xamante nii dañu nekk ci liggéey xëy na di xaw a guddi yooyu yenn heures yi mm-hmm. ñu koy mën di ñëw muy euh, jour woowu mm-hmm. mm-hmm. ma nekk fi xëy na am na ma jot a xam di ko partagé am na it ñoo xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi faral di ñëw ba fii di jóge Dakar ku mel ni Pape Loum maa ngi bu baax a baax Ndiaga Mbaye di bëggee ku mel ni Pape Yade di leen siyaar caab maa ngi lay xaar noonu la demee après après ñoom ñëpp ñu ngi faral di fii nii di partager ak ñun tamit ci biir saal bi noonu la demee a xam dañ koy bokk li ñeneen xam danañ ñu bokk ak ñu mel noonu mais pare nañ daal nekk ci a seen bopp ñi leen di woo noonu naa leen fii kenn mënul taal hmm. ñu nekk nii mën nañ faa nekk am na léegi benn fa génn rek dem waaw ya. gis naa loolu gisati ko gisati ko kon bu hmm. kenn jël kenn di ko nax bu kenn benn xale bu jigéen di nangu ñu lay mëta di jaar ci sa kaw di la nax di la hmm. di la mu ko toog yooyu daal ñu mu ko mau rek ñi nga xamante ne si bëgg nañoo rejoindre groupe miroir du peuple si sa salle boobu noonu nan la war a mën a def fa la war a jaar bu njëkk bi mooy parentale parentale waaw deuxième fois mooy nga bëgg waaw nga bëgg soo bëggee am autorisation parentale. Hmm. boo ñëwee rek danañ mën a def. waaw loolu sax ñun ñëpp nañu bokk oyof bokk yaroo bokk nekk ak ay taalibe quoi. Hmm. ko defee a xàccal ñu doon baax. dégg nga doom hmm. waaw kay mi ngi noonu ba dajite lañ dalaloon si euh, suñu émission bu mag bi nga xamante si ni moom la ñu tuddee ëttu ndaanaan yi avec ñu leen jaajëfal bu baax a baax a baax ay ca mën ngeen a dem suivre suñuy émission si sa suñu seen YouTube Euh, Teuf Connection TV Sénégal waaye tamit mën ngeen a dem suñu compte TikTok Teuf Connection TV euh, Sénégal tarkal mi ngi noonu ëttu ndaanaan yi si yeneen facette ëttu ndaanaan yi si beneen um ndaanaan ëttu ndaanaan yaa ngi noonu mbokk yi dem leen gaaw ngeen dem fi nga xamante suñu mooy suñu seen youtube bi ngeen partagé ak like mi ngi noonu daal kàlla mi ngi noonu ak yéen ñi nga xamante ne si nii bëgg ngeen a rejoindre wala bëgg ngeen a def li nga xamante ne si nii mooy seen jàllale seen publicité wala nga xamante seen ah, euh, sponsor 883 ngeen am ni nga xamante ne si nii mooy publicité yu gën a leer tëwër aca di jëkka wari la woon fiti tundanani dalal ndanan magli muy di bada jidi aja mi ngi noonu rendez-vous la prochaine day doon ci def nana mango ningay suma amal ni nana nana mango ningay suma poning yai sumadene balewe kamal ni nidana duge nana sambala mangoning yai ne balewe